Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de wéy di like, merci de wéy di abonné merci également du bàyyi seen commentaire en hein, gars yi di leen jaajëfal si abonné yi ni wéy di agrandir famille bi et comme je dis encore bépp doomu aadama bu tëdd si lalu oto hôpital yi wala ci kër yi feebar yàlla suñu borom fëgg sa bopp nga jug bépp doomu aadama bu nekk ci tolof tolof également suñu borom teggi sa tolof tolof ñi nekk ci kaso yi également suñu borom génn leen fa ñu xam ñi deful dara euh, ak ñi def dara yëpp suñu borom tegaat leen ci yoon bi ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna suñu borom xare leen àjjana fiir daw si suñu mbokk sénégalais yi nag fu ñu mënte nekk Europe Afrique

ne gars actuellement mi ngi commencé di gën a yéegal niveau ñuy ñaan ne dina gën a wëy ci lool donc gars yi par rapport ak VAR bi ah dañuy dem ci VAR bi di remercier ñi participer ñëpp ah, parce que day permettre ñu fàttaliku temps booy et tout mais également parfois di développer suñu culture générale di échanger parce que fi kenn xamul hein ki yàlla rek mo xam te ku nekk fi am nga xam-xam bo xam xeyna yow mi may déglu sa yamako gëna ëpp yow yamako gëna mëna wax gaay donc valider gars gaay li la ah <laughs> gars ñi yàgg défar ay tamat traditionnel borom taaje bo et tout ah gaay gaay gaay yi gars yi génn leen ah, la leen di fàttali borom tama yi ñu doon defar tama der yi mbuus ak yoy di sacc seen mbuusu kër ak dem si boutique yi di sacc mbuus ak dox ba dëkk ak dëkk gi wa gox Bogor ba ay der également question moi gaay bi ban stade la bi stade bu nekk Sénégal la bi ban stade la ku xam aussi ban stade la ban année lañ créé stade bi donc loolu moi mooy question VAR pour permettre gaay ñu gën a développer suñu culture générale donc gaay bi ban stade la ah? donc bi ban stade la stade bu nekk ci Sénégal la waxuma Dakar la nekk waxuma ban gox la nekk mais stade bu Sénégal information également Gorgui Sy Dieng solo leen information gaay dafa tijji moom également structure boo xam ne pour wàllum monnaie lay def ah wàllum euh, weccoo gi comme yi ko yeneen structure di ko defee ci gox bi mu nekk loo xam ne ko donc bëgguma de sponsor yi mais quand même xam leen rek ne dafa tii loo xam ne weccoo xaalis la maanaam di échanger tey gars yi Jason Statham ah, donc de Celtic gars qui moo baat record de points yi ci journée bi woon amoon ci États-Unis 54 points 5 rebonds ah da nga am ak 3 assists ak également gis ngeen ah pourcentage bi mu am Jason Statham donc ñoom ñoo door ñi nga donc les Nets de ki ngeen di waaje gis ni ah, donc 126 à 120 ki ngeen gis gars est kenn dootu ko présenté Kevin Durant Kevin Durant actuellement baat le record bokk na ci joueurs yi nga xam ne nañ 25 000 points. 25 000 points le euh, nouveau chouchou des Nets donc ki nga xam ne revue dafa jóge ci blessure euh, convalescence donc Kevin Durant 25 000 points dugg na ci officiellement yéen kaay yi nag lañ jëm ci stade mu wax ci xëtam Mané signe son 107e but en Premier League wax ci également ci li nga moi ne mooy GFC ak AS Pikine yi nga xam ne ñoom démb ñoo am li ëpp ay résultats yu positif ndax ñoom ñëpp dañoo dóor goxu banlieue bi di wane sen bop waaye tamit dañu dem ci beneen yéen hein bi nga xamné moy donc Rewmi Sport mu ne Sadio Mané deuxième meilleur buteur foofu foofu lay nek ci Premier League hein donc tay mom mo top ci ki nga xamne moy Mohamed Salah Duc bi nga xamne mom nak ci walum bool bi dañ ko dóor dafa nërmeelu ci matcham bi ñeuk wa Duc ñu leen ñaan tay ñu gëna fas jom gëna tamit genn ci ah waa Duc wax ci également ci li nga xam sunu lamb ci xëtam gi njëkk mu ne euh, modulo Lo les dates possibles le jeudi 26 mai plus possible plus plausible plutôt né 26 mai dal mo gëna a ci combat bi dal di am wax nañ également ci lem ci organisation bi tuk Goro Sock mi également nga xamne momit moom it ne nii dafa wara gëna woné bofam wone nga xamne ne gëj na takk ngembam ñoom dugg ci arène bi nak moy yene kay yi gëna a ci fofu non ci Angleterre ñu koy xool ne ci xër gu njëkk ñi ci ëpp ñëpp ñom dañoo wax tay ci jongante bi amoon dem derby mancunien bi amon dem diggante Manchester United et Manchester City bi nga xamné donc Manchester City moo mujjee do dem notamment avec le doublé de Kevin De Bruyne Guys championnat du Sénégal wax ko championnat du Sénégal nak jamono ji premier promis, yi maanaam euh, muy GFC mi première division mo nek P euh, deuxième division également nga est moy donc premier mais aussi ñu sétlu en matière de buts xol na ñi ngi ci journées hein, championnat sénégalais donc notamment ci championnat Ligue 1 ñu seetlu ne ki nga xam moy GFC ak ki nga moy donc euh, AS ak ak suma jumul ñom actuellement ku nek donc buts en 12 journées soit un ratio de 1,25 buts di wone né donc championnat bi mi commencé bari par rapport équipe félicitations à GFC félicitations à l'AS speaking également, au Jaraf et aux autres équipes. li nga xam nak mo jëm ci barrage coupe du monde bi gars yi guerre psychologique bi commencé na et tout Wa Mali ñom wa wa Tunisie dañ ni c'est au sein de leur déclaration dañu démon Mali pour jëm xol terrain bi waye officiel yi nekk foofu noonu Mali dañ leena terrain ñu xol terrain bi en tout cas Mali ak Tunisie barrage bi dina nekk match bu na metti neex aller retour kenn gis ni nak di Araujo le défenseur euh, de Barcelone moom actuellement des fêtes anniversaire am il a 23 ans Araujo mi nga xam ne donc dafa ñeu imposer bopam fofu non ci FC Barcelone un joueur de c'est un joueur de talent boo Barcelone compte sur lui gars également le procès procès plutôt FIFA Gate bi nga Nasser El Khalafi Al Khalafi plutôt nekk nag moom président Bein Sport en même temps ak également fi nga Moi Paris Saint-Germain ak Jérôme Valk ñoom ñaar nag dañ leen di toppee ne dañu am benn contrat boo xam dañ ko signé ci ginnaaw FIFA te nekk na loo xam dafa bëri njuñ njaaj te nag la seen procès bi démarré ci Suisse pendant ce temps également Paris Saint-Germain war rejouer jouer li nga xam ne match retour Ligue des Champions Ni wax joueurs yoo xam ne tey ñii waruñu leen ni ñoom ñooy titulaire wala pas bokk na ci Idrissa Gana Gueye ñu ne moom ak Paredes kan lañuy tek ci milieu de terrain bi gardien également Donnarumma ak Navas kan mooy góolu Achraf Hakimi ak gañu gañam ñu ne ndax est-ce que du tiro Kerrer moy départ loolu lañuy wax championnat bi nga xam également bu championnat de France gis ngeen Paris Saint-Germain dafa nërmeelu hmm, ki di Marseille également dafa nërmeelu mais teewul batay Paris Saint-Germain mo nek ci kaw am 62 points Nice top ci am 49 Nice mi door Paris Saint-Germain Marseille même bu fekkee dañ ko door mo am 3 47 3 troisième Rennes bu donc Gomis 4 euh, quatrième donc ki ngeen gis ni également du Moussa Diaby ñu formé ko ci Paris Saint-Germain actuellement mo nek ci Bayern Leverkusen gay donc actuellement équipe bi di Newcastle moko ko bëgg a Newcastle nak 60 millions la wax waaye waa Leverkusen ñom 90 millions lay laaj pour bàyyi la pépite française formée au Paris Saint-Germain. Pendant ce temps également un autre euh, joueur bo xam ni ci Leicester di Nigérien donc ay Iheanacho donc actuellement bokkoon nañ si meilleur buteur hein saison bi passée ci fofu noonu ci Leicester mais temps yi match mi joué bëriwul motax gaay gars yi ne dina metti lool lool lool lool ki Iheanacho mu dess fofu noonu ci Leicester ndax dafay bëgg a am temps de jeu bu considérable keneen ko xam également temps de jeu japp na né doyul muy ki nga xam moy Marcus Rashford Marcus Rashford nak actuellement sur les informations moom mi nga xalat ne est-ce que du jógee fa nga xamné ne ci Manchester United ndax liñ koy jox temps de jeu bëriwul wu nag jur na parce que yenn joueurs yi ñu ngi lam lamé sax ne amna na joueur bo xamné mom entraîneur bi daf koy favoriser bañ tuddé ko sax lu chouchou du professeur professeur bi nak jéglee na ñom ki de Ralf Rangnick lañ tuddé professeur ki nga xam nak mom légende la fofu nonu kenn dootu ko waxati hein des légendes foofu non ancien capitaine de Manchester United ñom ñi ngi génn di wax Manchester United a abandonné c'est inacceptable honte à eux gars yi ñi ngi wax na actuellement mom Manchester crise la nek écrit benen crise bokku na ci également est de Cristiano Ronaldo ñu ne moom euh, li waxon nako dem problème la am ci hanche bi mais gars yi neenañ fi mu ne nii donc euh, durée indisponibilité kenn waxagu ko wóoragul sax ne match bi ñew dina jouer Cristiano Ronaldo pendant ce temps également qui nga xam moy Manchester ñi ngi ci crise comme on le dit Premier League également Gaï, ah, ñi nga xam cho lii di euh, quatre euh, places hein, donc deux derniers places parce que finalement euh, Manchester City ak Liverpool ñoo nekk ci mais Chelsea Arsenal Manchester United West Ham Tottenham ñoom ñooy xëccoo ñaari places des pour dem Ligue des champions pendant ce temps également King ki ngeen di Bukayo Saka bokk ci joueurs yi nga actuellement ñoo ëpp la ñuy jouer di dugal foofu noonu ci Premier League moom la ak ki Smith Rowe ak Phil Foden ak Michael Olise ak Gabriel Martinelli ñoom ñoo nekk gos yoo xam ne ñoo ëpp la ñuy dugal foofu ci Premier League di gën a wane seen également donc s'il est U21 pendant ce temps également meilleur milieu de terrain yi ëpp plus prolifique fofu non ci Premier League Lampard mo nek ci kaw Steven Gerrard Top ci Paul Scholes Cesc Fabregas David Silva David Beckham James Milner et Kevin De Bruyne Mom gars actuellement donc mo nek ci donc 7 yi la nek le bok donc par rapport au milieu de terrain yi ëpp pendant ce temps le mur de Corée comme j'aime à l'appeler Edouard Mendy Edou Mendy l'homme du 6 février 2022 gars actuellement battra un record parce que 26 clean sheet en 53 matchs lo xam Kepa Mom daf ko def ci 80 matchs partie 80 matchs le def 26 clean sheet Edouard Mendy def donc 26 clean sheet en 53 matchs Nek record battre actuellement Edouard Mendy c'est le patron des Blues c'est le patron des gardiens en Premier League mais également du monde actuellement Edouard Mendy Momo, moo jiitu non noonu Premier League par rapport au clean sheet qui bu le nombre de matchs yi ñu mais également moo raw Kepa Arrizabalaga bi nga xam du deuxième gardien pendant ce temps également l'autre joueur l'enfant de Bambali SMD Sadio Mané le buteur également du 6 février de la finale entre le Sénégal et l'Égypte mon mythe, actuellement des battre record parce que Gaï qui gis ngeen nombre de buts du Premier League donc et des buts Gaï sans sans passe sans plutôt sans penalty également Sadio Mané aujourd'hui meilleur deuxième meilleur buteur ci Premier League parce que actuellement il est à 12 buts à égalité avec qui a ramené mon Jota boy set nombre de matchs yi Sadio Mané match mi Coupe d'Afrique B mais aussi Sadio Mané qui est derrière Mohamed Salah qui a ramené mon go meilleur buteur avec des penalty marqués et pendant ce temps également le duel en Italie entre Milan AC et le Napoli de du Koulibaly malheureusement Milan AC Modour, Kali Kalidou Koulibaly heureusement également une félicitation pour les supporters du Milan AC qui Olivier Giroud Modougal, son huitième but donc en championnat n'est qu'onzième même en toute toute compétition confondue ki nga xamné moy Olivier Giroud pendant ce temps le joueur bi nga xamné gars yi mi ngi équipe nationale du Sénégal ñukoy koy tudd muy Boubacar Camara nga xamné mom contrat juin bi lay jeex fofu nonu ci Olympique de Marseille Mom ñing koy tudd ci Manchester United kii di Boubacar Camara club yu bari également ñing ko fay tudd Newcastle entre autres hein, Crystal Palace ñing leen koy wax Arsenal et Borussia Dortmund ñi ngi bëgg a jënd ki nga xam Boubacar Camara Boubacar Camara nga xamné actuellement na gars yi ak Marseille wuñu ndax dafa ne nañ yokk salaire am li laaj gars yi ko fay je suis Boubacar Camara mi ngi équipe nationale mais également mi ngi jege club bu en tout cas gars yi wooyu di like toujours un plaisir de vous servir et n'oubliez pas de vous abonner Je vous jëf